asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen nongo Seydina Jibril Kawsara moo yéena dellu si ak yéen ci yóbbalu bés bi ku bëgg am xol bu wér maanaam xol bu mucc ci li yàlla bëggut ci ab jaamam ak yaram bu wér xol bu wér ku ko bëgg am dangay taqoo gaay yàlla yi nga xam ne àgg nañ ci yàlla te mën caa àggale ñooñu de ku taqoo toogaale ak ñoom am xol bu mucc ayib ku bëgg nag yaram wu wér dangay taxoo xiif bu digg doomu xiif bu digg doomu nee na nag mooy doo dugal ñam mukk ci ñam xiif bu digg doomu nee na nag doo dugal ñam mukk ci ñam ñoo ngi ko toxalee nag ci téere bu naan yu naqwal xaddiim sëriñ Touba wax ko fa jërëjëfe sëriñ Touba maam Cheikh Ibra